laa tudd di responsable APR Jaxaaw Caali tey waaw tey balaa ñuy wax liñ fi dajale dañuy sant yàlla julli ci yonent bi di sant le président Macky sàll di sant sunu ministre Thierno Alassane Sall ministre de l'énergie mi nga xamante ne tey jii moo waral mbaboot bi ñu fi dajale tey muy euh, plan woyofal bi ñu fi andi woon defoon fi ndaje bi ak directeur Senelec avec notre ministre tey jii ñuy firndelewaat di di di leeral li nga xamante ne lool lañ fi lool la ñu andi woon ci plan woyofal bi tey ñu andi câble yi andi li nga xamante ne mooy wane ne la ñu tegoon wax ko moom la ñuy mottali tey looloo ñu fi dajale fii tey. maanaam daal waaw dañu fas yéene leeral caal yi ba mu leer naññ à travers Thierno Alassane Sall. Mhm. Mm-hmm. Euh, câble yi ñaata la ak euh, yan gox exactement ngeen fas yéene euh, courant bi waaw courant bi nag fas yéene nañ cee leeral caali yëpp waaw caali gi yëpp incha allah fas yéene nañ ko cee leeral waaw loolu lañ fas yéene ci ndimbalu cer Thierno Alassane Sall ci ayu président Macky Sall waaw ci ci ci parti APR mais am na ñoo xam ne dinañ am mberteel ne ci biir Thiès quartier yu mel nii mosuñu xalaat ne amul courant mhm. euh, kon euh, yan jafe-jafe ngeen daan faral di am ak lëndamaay bi. waaw lëndamaay bi daana andi agression daana andi lu baree bare daana andi sàcc xale yi parce que tey bu koñ lëndamee nga yónnee xale bitik tey jii mën nañ koo jël sàcc ko ndax ñàkk leex daana andi lu baree baree bari daa nga toog ba mu yàgg ñu jékki-jékki ne sàcc nañu jigéen sax ndax may gi ndax yu bari da daan xew dañ daan jékki-jékki tegal ñu fii ay poto. bu ñu xëyee duñ ko gis waaye ci ay Thierno Alassane Sall gii poto bu ñu fi andi dañ koy taxawal ci kàttanu yàlla liggéey bi incha allahu rabbi démarré na démarré na balaa yàgg caal dina leer naññ agression dootul amati sàcc fi xale yi dootul amati euh, këf jigéen ñi yóbbu dootul fi amati leer dina am nàññ du boq nag ak li fi xewoon maw xaat ko rek répété waat ko teg poto rek xëy doo ko gis boobu amul ci ak Thierno Alassane Sall teg poto leeral rek taxaw booboo fi am incha allah waaw. mais am na ñuy wax ne mairie bi tàmbale na fi di indi ay ay courant ndax da ngeen bàyyi ba mairie bi ñëw ngeen ñëw yéen aussi pour leeral wala looy leeral ci ko boobu. waaw gis nga dafa am loo xamante ne nii nit xëy na peut-être yenn saa yi day nelaw soo nelawee di nelaw la tànk ngay nelaw gis koo xam ne dafa yeewu taxaw di lijjanti di dox. muy le président muy le ministre Thierno Alassane sàll boobu ba tey mi ngi taxaw ci leeral Sénégal ku nekk xam na ko te macha allah bi ñu ko fi nomee ba tey gis ngeen ne Sénégal gii coupure yi wàññeeku nañu loolu nag moo waral ba mu ñëwee fii ci caal yi wax ñu lañ ñu wax ba pare ci la ñu wëlbatiku doog a gis am ñeneen ñuy ñëw di am leneen lu ñu fiy teg waaye nag ba ci ceer Thierno di dox boobu kenn doxu ci boobu ñeneen ña ña ngay nelaw ba Thierno jógee taxaw la ñu bëgg a yeewu fekk Thierno la muy def yëpp def na ko. waaw looloo am. yan yeneen euh, mébét ngeen euh, am yéen fi euh, jigéen yu caali ak ñi fi dëkk ginnaaw courant. waaw ginnaaw courant ñi ngi fi teg ay projet ci projet yoo xam ne comme ni ma koy waxaat toujours rek dinaa ko répéter parce que nag moom moo moom moo moom moo dundalaat gox bi muy notre ministre dafa dundalaat gox bi moo tax projet yooyu moo tax jigéen ñi macha allah léegi xamatuñu yoonu banque mi ngi andil jigéen ñi ay leket ñuy ñuy ñuy suqaliku di leblante seen biir doo gis banque woo ne la ñëwal fay si. dégg nga andi yeneen ak yeneen xool ja borom jakarta yi sama sœur bi léegi ma maa jaataa ngi nii taxaw Mariama Diallo mi ngi nii taxaw ah Abdou notre responsable homme mi ngi nii taxaw ndax fii caali moo ñu fi taxawee comme sunu càmmiñ donc góoru jakarta yaa ngi fii nga xamante ne le ministre da leen di fekk si ànd ak jeunesse bi dem di leen fekk si di leen jox ay moyens ñuy ñuy yëngu ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne nii macha allah la ñuy wax Thierno Alassane vraiment ñun caal yi dañ koy sant ak jaxaaw yëpp di ko gërëm parce que vraiment lépp lu fi nelawoon ci baax-baax yéena ko mm. waaw ñu ñu nemmeeku élection yi ñu génn euh, Thialy mm-hmm. da ngeen ko daan ñàkk mais def ngeen ay effort yi passé mm-hmm. fu ngeen toll si liggéey bi pour euh, dooleel APR waaw élection yi passé euh, Thialy ñëpp dañoo takk seen sër parce que nag mon frère bu la nit joxee ndékki dig la añ yow da ngay xam ne kii da koy andi looloo waral élection yi jigéen góor képp ku ñëw di voté da nga ñëw taxaw ci caali voté taxaw ci caali gagné gagné ak le président Macky Sall parce que xam nañ ne kañu ñu joxoon ndékki ci développement dinañu ko andil incha allah wat ci développement ci añ looloo waral caali takku àndandoo ñun ñëpp voté gagné. waaw waaw euh, défi bi euh, député yi lañ la jëm. xam ngeen ne enjeu bi moom euh, rëy na lool mais jamono ji nit ñi ñu ngi bind si liste yi mais. xat na lool si yéen jigéen ñi da ngeen ci am taxawaay bu rëy. yéen a war a xëy toppatoo kër gi toppatoo njaboot yi ngoon gi ñu ngi nemmeeku yéen a ngi rang si commission yi. fu ngeen toll si bind bi ak lu ngeen wax aussi président. par rapport commission yi xaw neew waaw commission yi nag xam naa loolu moom dinañ ko yokk incha allah. mais bindu bi gars yi ñu ngi bindu bu baax a baax parce que nag les léegi dañu dañu yeewu dañuy yeewu dañuy dañuy voté xam nañ ne seen seen carte mooy seen baat xam nañ ne seen carte xam nañ na seen carte moom mooy li leen di defal li ñu bëgg moo tax macha allah léegi boo xoolee 5 heures du matin ngay gis fekk nit ñi di rang di di pour bindu ñun tamit ñu ciy dox di xool di jël suñuy militant di xool di jëli ñenn ñi nga xamante ne nii peut-être xëy na mënuñu rang bi wala dara di fexe ba muy oyof ci ñoom loolu ak jeunesse bi ñun ñëpp ñu ngi ciy ànd. suba ngoon guddi bëccëg di ci dox pour loolu di gën a yomb ci ñooñu nga xamante ne mënuñu rang bi. alimatu gasama ñu xamee ma ulay gasama. dëkk caali. dëkk caali. Euh, am na ñoo xam ne ku leen waxoon tey Thiès caali ak ni ñu koy tuddee ni mu amul am na yenn amul courant duñ ko duñ ko gëm. duñ ko gëm ndax man ñaar fukki at ak juróom lampe musul tàkk sama kër. fii ci caali fii ci caali musul tàkk. te courant bi dañu doon yenul ay poto rek indi jóoral ñu suñu jóoree poto ba ñu yaakaar su élection yi passé ñu gàddu poto yi yóbbu ñu delluwaat ci lëndëm gi te koñ yi ñu ne koñu violence la fii kat dara leeru fi ndax kotu tuxkatu yàmbaa yaa ngi fi jaaykatu yàmbaa yaa ngi fi ñi ngi naan sàngara si te ku ci màndi sa buntu kër ngay man de waxuma dara sama ruq boobu ku fa jaar su ma dóoree yat su ma daanoo balaa may nit di wal dina fekk sedd naa guy lëndëm bee ko waral sonn nañ ko fu sonn yem nag lépp lu ñëw nag du ñu gëm xam nga tax du ñu gëm dañoo dañoo dem ba ba suñu yaakaar dafa yàkkeeku lu ñu gis rek dañ naan dara du sotti wante lii ñu gis tey de xool sedd na gum de xool sedd na gum li dikk balaa ñuy gën a nag gën nag yaaweeku nag mun a ràññ bés bu ne ràññ rek keroog waxuma dara wante <laughs> Sénégal dina moom boppam de su keroogee waxuma dara ceeno day bég day bég ak ku mu àndal day bég ak ku mu lëkkool day bég kon boog Abdou Fall day wax dëgg yàlla xale la wante ku rafet xol la nit sooy wax ngay wax te yàlla tax ku rafet xol la loo am soo ba jant sow dina dugg ci biir kër yi rëyul dugg fenn toogul ne man du ma dem fii wala duma ma dugg fee day dem ñëw wax la expliquer la toog ànd yow keroog bi gars yi ñëwee dafa ànd ak man won ma ruq bu nekk ma won leen ne la fii ak fii fii nii la mel nii la mel kon boog dama koo ñaanal yàlla na ko yàlla defal jàmm. Macky Sall mi fi yàlla teg nag yàlla ko fi teg ah bëgg yàlla ko fi teg bañ yàlla ko fi teg bés bu jeexalee day dem keneen ñëw toog mais yàlla ko fi tegagum kon boog nañu ànd ak moom ndax li dugal fii dafa ànd ak moom. kon nu ñuy def borom féetal du xeex ak borom yat borom yat du xeex ak borom féetal. fi toog depuis ñeenti at yéen amagu leen woon courant ah. xanaa bi est-ce waaw du ñu du ñu xool ci mu élection mun na jege si déglu ma élection mun na jege si ñu sotti ñu fii ay poto kon du ñu am yaakaar mais li élection yu jege lii fi wàcc mosu fee wàcc kaabul mosu fee taxaw ay lamp mosu fee wàcc kon ñun am ñu yaakaar am déet ki ko indi it. yàlla ko jagleel mu war a ñëw léegi tey la ko yàlla dogal léegi la ko yàlla dogal pour mu egsi ñun am nga yaakaar am nga yéene pour def daa mel ne ma am alal war la ko may bés bu ne nga ne ma diw de dafa ma waroon a may ta may ma waaw wërsëg bee eggagul wërsëg baa ngi doog a teer si Sénégal jëm na kanam nañu kontaan na ñëpp taj. parce que léegi yow fii euh, yan yan ngeen bëgg léegi nguur gi gën leen si jàppale parce que xam nañ jigéen yéen yéen a yor kër yi xale yi ñu ngi góorgóorlu mais liggéey tax ko demee noonu léegi du ngeen wax président aussi comme que jàpp yëpp lañ koy wax moom la fi yàlla teg. waaw wax ko aussi. waaw ñu wax ko tawat yi tawat yi ñu koy wax. Hmm. moo dikk jigéen dañoo sonn ndax jigéen ñi su góor ñi jaaree fi jigéen ñi war nañ jaar nii dañoo bëgg tey ñu dimbale ñu financement ñu mun a liggéey jàppale sunuy njaboot ñun gisee ñun ñi fi ne ñun suñu wàll daf wéy ñun lépp lu ñu def doom la ñuy dimbale kon nag nañ ñu jàppale ci boor boobu jàppale nañ ci courant bi ba mu ngi ñëw nañ ñu jàppale ci bii jàpp ci xale yi ndaw yi tamit ñu liggéey gis ku ci liggéeyu rek da nga àddu kalpe mbaa ma romb ne la nii paaka foo koy jooytu rey bi bari na. est que xale yi ñu ngi jàng yéen a ngi ñu ngi jàng ñun li ñu mën ñu ngi koy def de. li ñu mën ñu ngi koy def ci suñuy doom waaw am na ñoo xam ne nag góor ñu yettuñu soo duggee ci kër benn nit moo fa nekk di liggéey di dugal ci biir kër ñi si ñis dañuy chômer kon loolu taxul kër neex balaa kër a neex ñëpp di liggéey kii jàpp fi kii jàpp fi kii boobaa kër ga day neex. waaw bind bi si liste électorale yi dañuy wax na jigéen ñi moom borom musóor yi am nañu solo de ku falu de daanaka. waaw man jigéen ñi suñu falu woon dina neex tuuti waay ndax xam naa ne moom <laughs> dara du manqué. waaw léegi nan ngeen di waajalee élection yi ak par rapport bindu bi si yi métti na il faut nga. torop wala nga ngay jóg. pour ba 2 heures. ñeneen ñi nañ toog ba 5 heures doo suñu duggee li li ñuy jël du bari ñeneen ñi dañuy dem fanaan te loolu metti na am na mag ñoo xam ne mënuñu ko mag mënul dem di fanaan i àll dégg nga ñi nga xam ne ñoo gumba mënuñu ko ñi lafa it mënuñu ko. kon dañ ñoo war a ubbil bu gën a yaatu